bismillah aousu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmaani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul xuqdatan min lisaani yafahu xawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa baraka ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonante bi aleyhi salaatu wasalaam di sant Cheikh Ahmadou Bamba di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Gandior Gon di ziare bu baax mbooleem mbokki bi yëpp ak ñi ñu bokkal barab bi ñëpp ndeysaan di nuyu mboolem ko yewoo fii dëkk bi Argentine ak ko yewoo mboolem ca nekk ca Sénégal ak ci yeneen réew yu ñu wër yëpp ak ñi ñuy dégg ñëpp ndeysaan di ziare sopp yi ak xarit yi ak mbokki taalibe bi yëpp ñi nga xam ne ñi nga bàyyi jataay bi xëy na dañu waaj ne tey insha allahu taala ci seen beneen alxamis ci diine ak jamono ci kon waxtu wi ñu ko defee ci waxtu wi xanaa rek di profité di sant yàlla bu baax di wax ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye ne dañuy wax ne alhamdulilah ala kulli yàlla ginnaaw bi ñu alxuraan waxee nii ci yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ñu dañu waa in tutiihu tahtadoo mooy bu ngeen ko toppee rek di ngeen jub ndax kenn ku ci rekk xam ne ni ndeysaan waa anal masaajida lillaah la alxuraan wax jàkk moom jàkke suñu borom la kon yaakaar naa dañuy am mbégte mu rëy ci bu ñu wootee ci woote bu rëy boobu nga xam ne ndeysaan suñu maam alaaji di ñaan san borom naal yi nga xamante bekk nii mboolem seen njaboot gi ñu ngi koy naal ko ci cheikh mahamadul muntaqa al kabir mi nga xam ne mooy fadilatul saahibu saahibatul fadila di ñaan sans borom tabax ko kattan moom moom mbooleem naal yi mu naal ci maam cheikh ahmad bamba sans borom ko damay faral di wax ni benn gi diine moom lool la ñuy wax ne kërug diine gi waaye kërug diine yi moom loolu ndeysaan man dama koy faral di ñaare di ko dàq ndax benn bopp wala fa defaree wax ne mën soo koo xar ñaar waaye benn bopp man damay faral di wax ni kenn war koo xar ndax kenn ku ci nekk xam ne bopp mën nañ ko xar ñaar waaye boo ko xaree du mën a jariñ kon mu mel ni di sant bu baax a baax wax dëgg yàlla rawatina fii ci waa Argentine ci sama borom ni mu dogal ndeysaan passif bi ñu ci def ndeysaan ci njëlbeen gi di ñaan yàlla nañu ko tàmbalee ci bisimillahi rahmaani rahim yi eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax fa inna awsan fihi ni fi ikmaalihi jëf moom balaa rafet rek day mat kon mbokk yi ngi ñaan rek sama borom tëbb ñëpp a kàttan xéewal bu doof leen ay xewal yu bari yooyu yaatu bañ mën a àggale seen ci liggéey yu baax yi ndax kenn ku nekk xam ne san liggéey moom mënta ñàkk ko demul ci àll bi sëriñ bi dem ci dimanche Firawna rek kon mbokk yi suñu xéewal yi nga xam ne suñu borom yi ñu koy dénk yàlla na ko sama borom defal foo xam ne ëllëg dinañu mën a jariñ ndax comme ni ko suñu kilifa gu baax ga rek waxee na Cheikh Saalihu ndeysaan radiyallahu anhu moom it naan ñaari bi rek am sa biiru bopp ak sa biiru bàmmeel sa biiru bopp bi nag bàyyi ko rek ak sa borom mi la bind temps ala la jox loo ci def waaye nag sa biiru bàmmeel nag moom loo ko defee doo ko ci fekk te loolu moom yaakaar naa ni moom ñun ñëpp xam nañ ko fa man yaxmal misxaala saratin xayran yara wa man yaxmal misxaala saratin saran yara kon yàlla nañu suñu borom àggaleel kon nag mbokk yi xam nañ tey dañuy ñëwaat ak yéen rek ndax yaakaar nañu kenn ku nekk xam na ni ñu ngi jublu ci bisu màgg bu rëy boobu ndeysaan suñu jàmbaar jooju ci la amee suñu borom muy Cheikh Ahmadou Bamba muy ñaari xan nag mën nañu wax ne ñun moom tàmm nañoo safar fii ci Argentine kon yaakaar naa ne bind boobee nga tolloon di ci safatu chère bi nga xam ne moom lañu indil ci waxtu wu nekk moom la ñuy fas yéene wéegeen incha allahu taala Sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaara mi ngi nettali ci yoonu géej gi nee na am na barab boo xam ne dafaa yàgg maanaam dafaa def ab diir bu yàgg dafaa yàgg lool ba mujj bakkanam mel ni da cee yuqat yuqat mooy da cee tayal maanaam mel ni lu ko xaw a soof ni maama ci wax ni rek mel ni lu ko xawa diir bu yàgg lool mujj mi di ko jàmbat waaye jàmbat googu mu doon jàmbat rek ci la ko suñu borom same ay xorndom maanaam suñu borom yebal ay xorndom yu baree baree bare bari tey ñu koy lor mu xam ni lii bakkanam moo ko ko teg nga xam ni Cheikhul Khadim ndeysaan lépp loo xamante ni sama borom da koo dogal xeet nañu bu jëm ci wàllu àdduna rek sama borom ko da koy nar ci loolu loolu moom duñ ko ko bàll diggante ba mu toog di yokkat ni am naa fi ab diir bu yàgg rek ci la ko sama borom noté maam sam ko ay xorndam yu baree bare bari ñu di ko lor mu xam ne lii nag bakkanam ko ko teg moo tax mu ne wa maa asabakum min musibatin bi maa kasabat aydikum waaye def far jàmbat googee nag ci sant daa di ne nasaxtu bi nasaxtu bi sukri sikaayatan fala loxo duri wa duri afala xornam yépp daal di dem sëriñ bi mel ni ku daal di jëm ci noppalu moo tax mu wax ne xayra luuma xayra luumu la abdullahi salim di junju ci waxam ji muy namlun kamislu ruxaali namlun ka mislu roxaylil juuxe fi xasimin yulxaa lahu almaru lam yaxmun bi idraari Sëriñ Tuubaa xaadala maxtaara loxo ba tey nee na am na waay ci ñoom joo xam ni mas na koo def lu maanaam lu mu ko def xam nga fa fekk ay mbooloo moom day am nit ñoom dañu tolloo ay tabiya dañu tolloo ay xel day am nit ñoo xam ne dañoo mën a tooñ jamono bi mu nekkee nag ci liggéey bi toit bi da cee am koo xam ne dafay ñëw ci sëñ bi nag def ko defin woo nii war ko koo def am nag ci moroomam li ñu faral wax ne foo gis nit ku baax rek isaar safaan ko ki nga xam ne moo ñëw def ko loo xam ne waru ko ko def am meneen morom moo xam ne moom it dafa ñëw ku ko yedd ko ba mujj rëccu lool daal di ñëw ci moom ci guddi googu ànd ak ku koy womatal ab gàtt maanaam am xara wala ubay rek gàtt daal lañu ko mën a woowee yor biteel bu rëy bu def lànkar lànkar bu ñu ko mooy daa sukk ci kanamam ne ko damay tuub te bala maa dem nga teg sa tànk ci sama dox gi sëriñ bi nee na ma jégal ko jégal ko rafet nee na boobu nag daf ma fekk may bind ma bind nag mu daal bind fa saase alaana alaana lii laylatal xalba shirtidaat min baxdi ma jaa bi shaadin omidaat yàlla nooyalaan na ma guddik tey xolub ku mortat ginnaaw bi ma indilee ab gàtt ak daa ndeysaan sëriñ Tuubaa xaadalaahu maxtaar la nee ba tey mi ngi nettali nee bi ma nekkee ci géej gi am na jamono joo xam ni daa dëkk kilifa gu tar gu tar lool tar nag mooy tàng jër ku metti dem moom moom ku metti jamono rek waaw dëkk kilifa gu tar lool goo xam ni kenn du ko jege te lu baax du ci nangu dara dara dara dara benn bés moom sëriñ bi mu ni day seet jihaatam ci mbirum waa jooju sëriñ bi ne day xool jihaatam ci mbirum waa jooju xool nan la ko yàlla di tàggatale moom waa jooju noonu daal di jóg néegam moom sëriñ bi daal di jug néegam wuti ko waaye di wuti néeg waa jooju ñu daal di ko dogale nekko moom sëriñ bi ñu dogaloon nekko ko ne nga jëm kat mi ngi jëm si ci yow ndeysaan sëriñ bi nag loolu moom mënta nekk nga xam ne da doon natt jeexatam ci waa jooju la natt sax borom dogal loolu am bi mu jugee jëm ci waa jooju nga xam ne maam ñu ne ko waa jooju mi ngi jóg jëm si ci yow mu ñu loolu moom mënta nekk am kooku ñu koy kooku nga xam ne des koy sàkk muy bañ nan la ñëweeg boppam moom nan la mën a jóge ñi koo xam ne des koy sàkk muy lànk moom nu mu mën a ñëweeg jëmmam kon ñu ne ko ah, mi ngi ñëw de Mbàkke Balla mu daal di gaaw moom sëriñ bi jóg gàttandu ko fa sori bég ci moom loolu ànd ak moom ba àgg ca barabu boppam nekk loolu bi sëriñ bi ànd moom ci barabu boppam nag ñu toog toogaay bu yàgg mu noppi rek di ko xool maanaam mu noppi di xool sëriñ bi rek di ko xool ba ci yàgg mu ne ko loo bëgg loo bëgg moom waa ji ci yàkkamte loolu sëñ bi doon sallallahu alayhi wasallam ne ko loo bëgg waxoon ko ay yoon ay yoon ñu ko xool xool di xalaat xalaat suñu xaar di xaar ko war a wax war a wax yàgg mu ne yàgg daara ca daara ca daara ca daara mu jox mu jox ko jël bu rëy rëy bu fees la daal ak daal mu dellu mu dellu ne boobu moom sëñ bi ñu ngi benn xasida ci xaraf ab tasaja sëriñ bi mi ngi bind xasida goo xam ne mi ngi koy tënkee xaraf yi ak asida nga xam ne xaraf wu ci nekk da ci woy juróom-ñaari bayit mu agsee ci xarafu yi bind na faasat xilaami inda axlafa jahat wa rattuhu bi xul huwallaahu ahad di bindaat yeneen bayit moom sëriñ bi ñu daal di koy wàqante maam ñu déy ko ne ko lii war la nga xam ne sëriñ bi lu mas def lu wuuteeg maanaam lu nuru juubu rek maam day am lu waxante ak moom bi bind la ba noppee rek dafa am lu ko déy ne ko lii war la yaa ngi leen bàyyi mot la xan ba noppi di jëlaat ci ñoom dara ci ak nëbb muy daaj jooju nga xamante ne bi que nii kooku mu noon not kooku mu noon natt jihaadam moom joxoon na ko ko yaa ngi jihaatante ak sa yaa ngi bàyyi leen yaa ngi leen bàyyi mot la xan ba di jël dara ci ñoom ci ak nëbb sëriñ mu daal di taxaw gas ba mu xóot moom sëriñ bi mu so daal di cay sotti daaja waaw gas ba nga xam ne jihaadam jooju moom mu doon seet sa borom dëggal na ko ba sëriñ bi mu ngi ci waxinam yooyu nga xamante ni ndeysaan bi mu jógee ci géej gi da ko doon yu neex yoo xam ni da ko doon mag ñi muy waxin wu teey sëriñ bi nee na bi mu nekkee ci géej gi am na jigéen am na jigéen gu askanoo ndar mas naa gént moom soxna soosu mas naa gént ay góor dugg ci dëkk bi mu nekk tàmbali di leen rendi am ci gént bi ñëwee ba agsi ci ñoom ci moom soxna soosu am ci ñi nga xam ne ñoo doon rend ci ñoom ku ne ko kii ab jullit la ñu bàyyi ko sëñ na jigéen jooju ku baaxoon ci man la ndeysaan daana ma liggéeyal lu bari ak di ma jëndal matt te booba matt jafe woon na lool ci jamono yooyu lu ma masaa jox nag dafay wax ne ma maa ko liggéey ci sama loxo du njëgu sàngara du njëgu cigarette ngir xam nga mu xam ni sëriñ bi du jëfandikoo xeet yooyu maanaam sëriñ bi du jëfandikoo xeeti xaalis yooyu am na bi bisit mu ne ko moom sëriñ bi ne ko loo jublu ci lii loo jublu ci lii nga may defal mu ne ko bu dee fii ci àdduna day doom laa ci bëgg bi ko sëriñ bi waxee ne ko loo jublu ci li nga may defal ne bu dee fii ci àdduna day laa ci bëgg bay nag fay ci àllaaxira nag moom aljana laa ci bëgg mu ne ko suñu boroom mën na lépp ñu teg ci diir bu gàtt mu daal di wan na aw lor ndeysaan te loolu daawul maanaam te jamono boobu soxna si maanaam tolloon na ci jamono as boo xam ne maanaam mëntoon a am doom mais sëriñ bi suñu borom defal lu mu defal kun fa yàqoo xam ne lu ma sax war a ànd ci ak moom li jubagum jubag boromam moo tax bi ko soxna si gaarale yiteem sëriñ bi ne ko wala ax na mu ne ko yàlla mën na lépp te yéen a yooyu soxna si amoon may innamal ahmaalu bin niyyati bi ko sëriñ bi nangulee rek sama daal di koy dogal soxna si san daal di ëmb te booba way san weesoo woon na fu nit di tollee ab diggante bi am ab diir bu gàtt mu daal di faatu ndeysaan sëriñ bi jullee ko sëñ bi ne keroog bi ma koy jullee la sama bët sa tege ci moom ndeysaan loolu ci ci ci ci gàtt rek ci ci ci ci parenthèse rek maam jàngit bu rëy la nit ku xam ne du ci yow di la indil ay xéewal te bis bi mu fàttoo nga tim ko di ko jëlee boobu la sa la sa bët masa tege ci moom loolu mbokk yi am njàng li mu rëy la nit ñi nañuy xool li ñuy tudde ay valeur di ci bàyyi xel ndax dafa am solo sama borom dafa dogal bu fekkente ne bi kay da nga nekk mu kàllaf loolu dama koy wax ngir ñun ñi nga xam ne ñooy ay tuutàkk dinaw di bëgg lu baax dafa daganul ndax bu dee ci jawxar na fi si rek waaye da ngay dégg ñu suñu jox ne talasun bi xawliha bu fekkee jigéen dafa waxaat ay kàddu rek boo ci amee bànneex rek ci kàddu yi rek am nga ci bàkkaar rawatina nag maanaam nga koy xool raami xan wala nga koy teg sa loxo wax lu mat a bàyyi xel la sëñ ndax li ma daan jox lépp sëñ bi def ne lim ma daan jox lépp ko daan yónnee moom seriñ bi soxna soosu Daba Sëy la yaayam tudd soxna soosu si daan defal loolu sëriñ bi waajur mu jigéen mi ngi tudd soxna Daba Sëy mu tudd moom soxna Aminatu di soxna si Yelli Sëy Yelli Sëy nag max nii moom nga xam ni moom ku bëggoon sëriñ bi la ne sëriñ bi nee na daan na ma defal cik daan na ma defal njekk am na bis muy xoloog moo kilifa gi nekkoon maanaam commandant bi nekkoon foofu te lépp sëñ bi nee na maa ko waral ndax dama tegoon ñeenti bant maanaam sëñ bi dafa tegoon ñeent bant ci sama buntu nekk ngir nit ñi bañ di romb fi may jullee waaw sëñ bi dafa jëloon ñeenti bant yu mag maanaam def ko ci buntu néeg bi mën nañ koy solo mel ni saatir waaye ñeenti bant la xam ne maanaam da gaaraloon ci buntu néegam ngir nit ñi maanaam bu fekkente ne dañuy romb di mën a romb ci ginnaaw bant yi mën a romb ci kanamu bant yi nga xam ne da ko defee maanaam loo xam ne da koy fege ci kanamam sëriñ nee foofu laa defoon ñeenti bant yi suñu borom dogal kilifa googu ñëw tasaare bant yëpp daal di koy dënd yëpp daal di koy sànni ndeysaan ni ma fii julli amu fi daal di ñëw di sànn daal di dënd bant yi sëriñ bi sampoon daal di koy tasaare sànni ko ne ko fii julli amu fi lislaam amu fi dangaa bëgg a yàq soldaar si ma noppi waxuma ko dara bi ko yelli say xamee moom Yélisey bi wax léegi bi ko Yélisey xamee daal di jug fa saasa dem ci moom nekkoon lu tax nga yàq jàkkay jàmbur ji ndeysaan Yéli moo jógal sëriñ bi jël ko par dem ci commandant bi nga xam ne moo ko seefi mooy kilifaam ne ko lu tax nga yàq jàkkay jàmbur ji lu tax nga yàq jàkkay jàmbur ji te ci buntu néegam la ko def xatalut kenn waaw xatalut aw yoon xatalut kenn mu ne ko maa ko def noonu fii jàkk amu fi. tubaab bi ne ko maa ko def noonu fii jàkka mu fi say ne ko nag mënta ñàkk ma delluwaat ko mënta ñàkk ma delloo ko def ko na mu nekkoon nga xam ne ki muy xoolal maanaam kilifaam la waaye sëriñ bi sax jaral na ko loolu ndax maanaam sëriñ maa woon ak salagum sali ay jullit gum jullit jullit gum jullit borom moo tax yéen li amputé ndeysaan dem jëlal paas sëriñ bi te ko kasal te xam ni ëllëg njëriñam da nga ci nekk ne ko fii tubaab bi fii jàkk amu fi maa ko yàq yéen ne ko mënta ñàkk nag ma delloo ko nammeloon ndeysaan allahu akbar yàlla nañu sax mu fayal sëriñ Yelli Sey moom tollu ko ay leer bi ko waxee ne ko mënta ñàkk ma delloo ko na ma meloon mu ne ko doo ko delloo ñu bëgg a songoo àgg na sax ñu bëgg a songoo nit ñi dox seen diggante ñu nekk fa di xoloo takkusaan ba ñett bi so takkusaan lañ commencé di xoloo ñoom ñaar ndeysaan ba ñett bi so ngir jataayu sëriñ boobu ndeysaan allahu akbar nga xam ne loolu mooy pas-pas mbokk yi yàlla ñu yàlla def pas-pas bu sell ak yéene ab julit dafa war a am pas-pas maanaam ginnaaw bi nga waxee ashhadu an la ilaha illallah maanaam ci sol ci sol làmmiñ ko war a nag jëfee ci say xër ci say cër ko ci sa xol ba nag am nag pas-pas mbokk yi pas-pas moom la saxaaba yi a gadee dem nekkoon ci wàllu labat ko faa bàyyi ngir pas-pas ñu nekkoon ay commerciaux dañ ko faa bàyyi ngir pas-pas ñenn ñi taqali ko seen ko seen bàyyi ngir pas-pas ngir lan yàlla tax afaan ñëw waa in tuti'uhu tahtadu bu ñu ko toppee rek da ngeen jub lu baax duy caaxaan yàlla amut dara dara dara dara dara lu yomb képp ku bëgg si moom na rek ala kulli ay rek faw ngay foog guddi wala faw ala kulli ay ngay dugg jëm ci lu baax di jaxate sa bakkan bii sëriñ bi lu baax yomut am ñu yàlla sàmm te xiiriñ ci lu baax bi ko waxee ne ko mënta ñàkk ndeysaan ma dale ko ñi meloon ñu nekk fa digg xoloo diggante ndeysaan takkusaan ba jant bi soo loolu lépp sëriñ bi nee na maa ngi bind rek loolu lépp sëriñ bi moom mi ngi jàpp njaw ndeysaan dugg ci waxu ci moom di bind ndeysaan te coow lépp ginnaaw yàlla ci moom la sababoo waaye mi ngi ci moom li ko yàlla digal rek muy toog continuer ndeysaan moom di bind sëñ nee na ci loolu laa bindee xasida ak rabbana axrijna min haasihi alxaryati alcaalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min nasiran raditu xanil mawla taala rasi rabba fuaadi wa axnaani wa akrim bihi rabba nee bi ma agsee ci lahu uktub salaatan max salaamin bi alihi wa asxaabihi wajxal bihi masjidi rahba ndeysaan sëñ bi ne bi ma fa rek ñu ne ma wuyu nañu sax ñaan sëñ bi ne bi ma agsee lahu uktub salaatan max bi alihi wa asxaabihi wajxal bihi masjidan rahba ñu ne ko wuyu nañu sax ñaan te da nga ci des bët wuyu nañu sax ñaan te da nga ko ci teg sa bët Serigne Mahamadul Amin Diop nee na ci Irwaa Nadim ba tey. te mboole mi nettali lii mbooloo mi nga xam ne ñoo nettali ci Yelisey foofa lañ nekk nee mas naa ñëw njaaree moom Yelisey Yelisey mi nga xamante ne bi maanaam moo doon xoloo ngir sëriñ bi ndeysaan jàkkaam jooju ñu yàqee fa tabarakallahu Yelisey moom mas naa ñëw njaareem ndeysaan ca sama dëkk bu baax ba man moom albuqaatul mubaraka dama ko sopp lool ndax foofa laa yoroon ndeysaan maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di ziare bu baax sëriñ Souleymane Gueye mi nga xamante ne bi nii ndeysaan ak sëriñ Abdoul Ahad Gueye ca daara jooju foofa laa jaar di leen ziare bu baax Serigne Souleymane Gueye di ko ñaanal sa borom yàggal ko fi loolu te wér la ko ndax moom mooy jiitul daare kamil bu njaareem ndeysaan di ziare bu baax a baax Serigne Abdoul Ahad Gueye bi nga xam ne moom sama xam ne ndeysaan di ziare mbokki taalibe bi mu ñëwee njaareem bi jumaa ji àggee mooy jumaa njaareem ji ndeysaan nga xam ne sëriñ bi moo ko boppam bi jumaa ji àggee sëriñ bi wax sëriñ Mahamadul Amin ak keneen ne ko ànd leen ak yëlli mu siyaare jullikaay bi ndeysaan sëñ bi ne ko ànd li nag yelli mu siyaare jullikaay bi ñu ànd ak moom mu xool fépp yéemu lool moom yelli sëy ndax moom da doon xeexal sëriñ bi ci ñeent bant yu si ñeent bant sëriñ bi daa jëloon ñeent bant def ko ci buntu néegam ngir def ko jàkka ginnaaw bi li jàllee moom mu ñëw ci sëriñ bi di ko ziar si fekk fa jumaa ji tudd jumaa ji sëriñ bi loolu fanaa yéeme na ñeent bant la doon xoolal sëriñ bi ñëw fekk jumaa njaareem noppi sëriñ bi boole si Mamadou Amine Diop dagg na ak keneen ne ko yóbbu leen ci ko mu yóbbu leen ko mu ziyaare jullikaay bi sëriñ Yelli Sey di xool jumaa ji yéemu ci suñu borom kenn ku ci nekk xam ne loolu loolu la suñu jumaa ji wax nii man tallabal amra wajada wajada wa man xalaxal bada wala ji wala ji mbir moom saa boo ko sàkkoore te faroo ci rek xala kuli àl faw suñu borom jàppale ci sàkkul mbir te bëgg ba pare nag dogu yow mi nga xam ne yaa ngi bëgg lu baax doxal yombut waaye xam naa kulli al bis na ñëw sa borom mën a wallu la ndax yàlla moom jàppal ni saa boo jëm ci moom rek moom mu cal jëm ci yow soo waxoo jëm ci moom moom day daw jëm ci yow sa borom ku bëri yërmande la kon lu baax yombut waaye jéemal soo yéemee rek sa borom gàttandu la xalaa kulli al ñun ay nit lañ te it dañoo nite la xadd xalaat na insaan fi ihsan taqi su la dina asala jéemal fii nga toll ci boppam maanaam man ngaa de bëgg na koy sa malaayka yi ci lan sa jëf kon dañu góorgóorlu ci lu baax waxte nag ab morit suñu jàmbaar jooju day dem na ba ñëw gàccee lu benn morit def fa dara lañ koy xamee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim solo kon yaakaar naa ne képp ku bëgg a roykaay ay jukko yu valeur xoolal ci sëriñ bi mënuma wala jéemuma wala sëriñ bi kay ma tamit ne moom yooyu ay xeet waxee la ay xibaara la yoo xam ne daanaka mënu ko ndax li am solo mooy jéemal rek bu bët mel ni sëriñ bi it moom xeeti jikko yi rafet yi nga jëm ci boo jëmee moom suñu borom mën naa bi ne tamit am boo xam ne ku la gis xemeem la loolu rek mooy li am solo ci doomu aadama ndeysaan yëli yu sañ yëli say ndeysaan di di gérer jullikaay bi ñu ànd ak moom muy xool fépp yéemu lool bañ gisee na ki sëriñ bi sëriñ bi ne ko nu mu def ak jàkka joojee ndeysaan sëriñ bi ne yëli say sama jàkka ji nu mu def ak sama ñeente bant yooyee xam mu ne ko ndeysaan nu mu def ak jàkka joojee yow mi doon xeexal yow yow mi ma doon xeexal ndeysaan sëgg bi ne ko jàkka ji nu def ak sama jàkka jooju yooyu moo doon xeexal mu ne ko ndeysaan wute nañ lool mi ngi mel ni yàlla ak yàlla wuute nañ lool mu ne ko bokk ñu dara sëñ bi ne ko mooy maanaam sama wax ji sëñ bi ne yëli jàkka ji loolu mooy sama wax ji ne ko nafa li xayrillahu fii ma yun ba maasaa xal bi wax dal jan ba maasaa xal bi boo ko déggee mooy jàkka jañ yàq maasaa xal bi mooy jàkka jañ yàq allahu akbar kenn du cheikhul xadim wa axlal jën baa nag mooy sooroor yooyu ngay gis ci kaw jumaa ji di san jumaa jumaa njaari joojo waaw di san masa xel bi mooy jàkk jooja ñu yàq wa axlal jën baa nag mooy sooroor ya ngay seen ci albuqaatul mubaaraka ndeysaan allahu akbar mbokk yi xam naa nag incha allahu taxala tey yaakaar naa suñu technicien bi fanweeri minute rek lu teg la ñu may kon xam naa dina ñëw a génn incha allahu taxala rek bu ma mënee wax ñaata lañ simili la ñu amagoon ma xool fii fekkee mën nañoo développé tuuti fi ñuy continuer bu kii ñu insha allahu taala ñu mën a dem insha tax taala ci naxju xajaay naxaaj bi kon xanaa mooy beneen bind bi rek beneen bind insha tax taala ndax sëriñ bu ñu ci waxtaan ndeysaan mbokk yi dañ koy dañ ciy dañ ciy bëgg lool ndax suñu yaakaar jooju ndeysaan ni ko sëriñ Muntaxa di waxee naan sëriñ bi kenn yebbu ko waaw naan sëriñ bi du malayka du yonante kenn yebbu ko ñoom nag dañoo am xalbul bashir ñoom moom sëriñ bi dañoo am gis-gisum xol ndax yàlla moom képp kuy sonn ngir moom xale ku di àll faaw mu dimbalal ci boppam moom suñu borom subhanahu tabaraka wa taala képp kuy sonn rek ndax yàlla du neenal jën jën jën jëf wax naa ko léegi fa man yaamal misxaara satan xeeran yara wa man yaamal misxaara satan san yara dara du neen dara dara buñ fàttani ni tey bis boo dundit doo ko dundaat kon yaakaar naa jëf ji ak wax ji ak nekkin wi ak mbokk yi mat ne xoolaat de nañuy rafetal nañuy rafetal gis naa rek mbir mu doy war moo xam ni wallaahi la xam ma ko ko gëm ñaari sénégalais yu taxaw di xeex bañ leen di filmer ci sénégalais bu taxaw di lal nga ne ko doo ko fi lal ba ngeen jonjante ba sànnante ay kurpañ ba di nga yow mi nga xam ne yaa ko not dóor ko ba moom mujj daa mujj doo nga dàq ko lan moo gën a ñaaw loolu lan lan moo ko jar lan yow li ngay dàq ndax di nga ko dab sëriñ bi nañu delloo suñu xel yi te rafetal suñu nekkin yi daray àdduna jëtul ay Sénégal di warante waxuma la di jàppante bàyyi ko fi ñu di jóg yow nga ni ab nga te koo ca waxoon tey ni ko yàlla mbaa gëmoo yonent mbaa gëmoo ki nga yaakaar amul kenn ci ñun ñi nga xam ne ñooñu la ñuy yaakaar ku ñu digal xuloo xeex yow da ngay taxaw di lal xamoo sax fi nga lal ndax di nga fi jaay fi nga taxaw di lal sax mën na fekk jàppal yóbbu say bagage dafa jël xuloo bay xeex nañu rafetal nañu rafetal suñu xol yi nañu ko yaatal bu fekkee nit bu ñu fàtte ni barab bu taxaw di fa lal def fa ab diir chaque jour ñëw lal rek nit ñi bàyyi ñu fa taxul ñu moom ko logaar fii ko amul ci mbedd mi nañu joxante cër te amante war ma léeg-léeg gis koo xam ne ni gis ñaa ko ci dara gis ñu wax nga mën a la lekk 3 mètres wala 2 mètres koo xam ne mi ngi sarakaas amul sax fu mu lal amoo xel mu tonn sax yow ne ko sax kaay ma ciikaar kaay ma wàññi nga teg nan lay wàññi waaye yàqal nga sax bu tegee sa sax mi ngi lay yàqal yow daal mën nga ni yàmmu lang lal loo xamante ni sëñ bi suñu xol yi nañ ko defar suñu xol yi nañ koo rataxal nañuy yaatalante ci mbedd mi gis nga li fekk ñi nga naan bëgganteeg jubóog nekk benn te duñ ko tudd dëkk suñu ram te duggul ci suñu xol ñu mos a def lu sotti parce que man ko wuñ ci genn wet dama yàlla bala am ci ñoo xam ne lii mooy sax ay falsé sénégalais bu ñu la waxee ak li ngeen fi doon benn nañ góorgóorlu ci loolu adduna amul solo ah waaye sénégalais yuy xeex ba ni leen filmé image boobu mën naa dem fu nekk loolu dafa ñaaw daray adduna jëru ko barkeb alquran al karim dara dara dara daray adduna jëru ko dara daray adduna jëru ko fii nga taxaw di xeex ak ki sëñ bi ay tubaab di gis te ñun benn sénégalais bu def maanaam bu dee ci wàllu yow jàpp ne moom booy nañ sénégal yépp dugal nañ ci benn pot dafa moo tax bàyyi xel bàyyi leen xel nit ñi nga xam ne ñu ngi def lu ñu mën ci rafetal ngeen ñëw yéen di taxal dafa ruslu yàlla ilaahi wa rasuuli nañu rafetal bu nit ñëwetee di teg ci barab bu fekkee yow da nga faa teg moom a jiitu la fa bàyyi ko fa dem tegee feneen da xam ne foofu amu fi logo fi xoo fa yow benn puesto waaye jàpp ni rek maa fi di yàggalal mbedd la chaque jour kii xam na fi infraté bi waaji sama xarit la rek maa fa dalal déedéet nit ñun nag ñu baal ma mën nañoo bàyyante warmante ci suñu biir ngir lan xam naa ni lay ba ma saar mooy la fi chaque jour ma di wax yàlla nit ku baax la naa koy bàyyi waaye lay ba ma saar yi na am xel mu toll ni bu ko fi nit jiitee noonu ma xooli feneen parce que moomu ko nanuy bàyyante xel te wegante te respecté na joxante cër te bàyyi suñu caaxaan yi man tey boo gisee sax am naa lu ma naqar ba ci kanam yàlla barke bi alxuraan ay sénégalais yu jonjoo xeex waa ji dóor ko xam naa da ko gàññ doole ba àgg ci daw mu dàq ko jaru ko nañu yërëmante nañu yërëmante ta wekante xam ne nag wallahi asim kenn yàlla rek am doole bala nga xam yàlla am doole léeg-léeg nga tëdd ci sa biir sa biir biir bi métti rek dab la jug fi nga tëdd sa doo ko man looy xalaat garab goo jënd jàpp ne man na ko sax maa nit ku la ñaan mu wér kon xam nga ni mënoo dara nañu wegante te yërëmante te bañ a noggatante noggat noggat baaxut bu fekkee li ko ëpp sa morom dara noggat ko loolu moom ca daara ja baaxoo te formation boo xam ne boo jógee tax foo de mën faa nekk ana yar bi ñu ana yar bi ñu yar maa ngi leen tuubal nag bu baax ci kaw wax dëgg yàlla loolu dafa nekkoon parenthèse boo xam ni dafa ñor lool sama xel dab ko mañ naa ko waxaale ndax dafa nekkoon loo xam que na ay Sénégal yu bari yàlla mi ci Sénégal te xëy na waxee ginnaaw fii nag barab la boo xamante ne bekk moom diine la ak jamono te loolu ci jamono ji la te ci mbedd la xewee te waxtaan ki suñu biir la kon xalaa kulli àll faw dinaa ko jàllale waxee mbokki bàyyi ko xel ñu ñëw ak kon insha allahu taala ci seen terre bu ñuy woowee nax ju yaakaar naa mbokk yi ñu ngi may wax ne ma ñu ngi bàyyi xel bind bi nga xam ne incha allahu taala foofu lañ toll bisimilah mu ne wa in tujaalis ndéem da nga man koo xam ni yekkoon dana nekk instant di gën a màgg min ko ci yow fala tadaak bu ree xaddaata bésu lu dul muñ wala takkun tabul nekk mustarsilan di aji yolomlu maa nga xoo di ànd ak moom fil kalaami ci wax ji fay na ko nag moom la muy yax su ni rafetul ku nekkal saakitan di aji noppi xataa yu àawi la ba dana sàkku alkalaami wax ja min ka ci yow fa xaatibhu nga wax ak moom isan boobee xadaral maram kem càkkutéef la fay na ko moom al adabu loolu mooy ay teggin fastaxmal jëfandikool bii ci moom fi xaqihi ci xaqam xëy isin ca boobee wanta bii te nga yeewu weñ jafaakan dem bëccëgal na la faxtamil na nga muñ wala ngay na nga yendu rek jafataxoo bëccëgalam googee weñ dax faa dem na fal tasturan suturaalal xafataxoo pakastalam ma wala tasal tabul dañ muxtasiran di aji dog ngant ilayhi jëm ci moom wala takun tabul nekk saaxada bin di boroomu mer xale yi ci moom wala tuwajjihanahu bu ko jubale bi nasari ca xool ba fii kulli waxtin ci yëpp waxtu raamixan di aji ja di aji jax ja mooy jàkk rek waaye nga ne xool bil basari ca xool ba yaani dana jublu ana min adab bi naka bokk na ci ay tegin alxasani yay aji rafet an laa tadaxaka ngay bañ a ree faw bi xadratin bi man ci teewaayu ka nga xam ni huwa moom akbaru moo gën a màggee min ko ci yow illaa tabashuman dara muñ waan laa tastarsi la ak ngay bañ a yolam lu fil kalaam yi ci wax ji ma xoo ànd ak moom illaa an jullu ba ndare ndare bu de ndare bu de moom daa sàkku ko loolee mën ko ci yow kon nag moom fatale ma ngay wax ma xoo ànd ak moom xanaa xadirima ci kem la nga xam ne talaba sàkku na ko fay na xoo naka moom al adabu loolu mooy ay teggin fii xàq yi ci xàqam xëy na isin ca boobee mu ne way saa jafaaka ndéem bëccingal na la faxtamil na nga yenu wala ngay na nga rek jëfatahoo bëccëgalam googu waxtashir te nga dog ngante ilayhi jëm ci moom wala tu wajjixu bu ko jubalee bi basarika ci sab xool wala tu kashir bul baril a nasara xool ba ilayhi jëm ci moom fa saaka loolee lay sa déet bi adabin mooy ay teggin ma ñëw indi max maanaam mi leer leen ko ci noonu ma ko waxee ci baat yi firi leen ko suñu baat dafa wax ni boo toogee ku mag boo xàqataay maanaam toog ak ku la mag di xàqataay doo ay teggin nit ku la mag ngeen toog ngay xàq nga wax ci kaw di xaqataay rek loolu day mel ne ndeysaan da nga ko di say weg moo tax ne boo toogee ku la mag bul nekk di wax di xàqataay ca kaw loolu nee na bokku ci wegel del muñ rek del muñ del muñ rek bul bari nag say wax itam ci kaw da ngay nekk it ba mu ba mu laaj la nga wax ak moom lu tollook sax lam la laaj waaw bu la laajee rek waxal kem lam laaj ndeysaan Abdoulaye Sarr Mbacke ana ko suñu ko war a sekk ah mi woon fii léegi di toog yemal foofu waaye bul xabaabal ba ba jëru bi àgg ci bu la laajee rek laajee rek mu tonn ko ci i ci nam la dama a a toog mais bul ñawal ko muñal bu fekkee da nga def na ko muñal xabaabal ci moom fakaasal la bu fekkee tamit daa amal lu mu warta amal mooy juum rek te mooy fakastalu nga suturaal ko te di ko jéggalu nag bañ a bari loo koy xool ndax du ay teggin nit ki bu fekkee ne bi suñu bu fekkee nit ki dafa toog ci ab jotaay yow nga toog ci ab jotaay bul di def maanaam raabi xandil jàkk rek bañ a xef loolu neen du ay teggin nit soo ko xoolee boo ko bëggee sa xool dama koy sàcc waaye jékki-jékki rek ndax xaj si bu ñu di xool rek loolu moom du ay teggin kenn du ko def kenn du ko def boo fekkente da ngeen toog ci ab jotaay moom mu dem ba fa kastalu mooy mooy dem ba tarxis ci wax ji wax loo xam ne dëppoo ak lu war a wax yow na nga ko jëlale yow na nga ko muñal waaye waxee kon yow na ko suusoral loolu mooy mag kon da koy teg fa nga war a teg yaakaar naa ne kon insha allahu mu mel ni xam naa suñu technicien bi mi ngi signalé ci amoon ci waxtu jeex na dañoo xaw xabaabal nag tey mu mel nii ci sëriñ bi ak waxtaan foofu nga xam ne lisaan dañ ko bëggoon a jàll lool mbokk yoo xam ne tey sax ñoo ñu envoyé vidéo bi di ñu ko wax mu nekk mbir moo xam ne dañ fa tey sax bu dul sax man ko ci groupe bi nga xam ne ko ne ñu ngi koy ñaawal bu baax ci ñaari yi nga xam ne jëf yu dox nañ seen diggante ki nga xamante ne bi ki nii moo féete wàllu mag wala boog moom moo ko doon néew doole na ko fexe gis ba xam ko jëm ko baalu àq ndax àdduna bërilu solo tey àq dafa sew te kenn ku ci yoreel nit loo ko wërta yoreel xalla kuli àll bis dana ñëw da nga ko ko delloo dafa am mbokk moo xamante ne bi ki nag maa ngi leen koy leerale nan na wattandiku it di am jëfalante ak àq joo xam ne daf ñuy topp ci suñu diggante ak ñu nekkal muy tubaab bi gis nga képp ko amee atuwaab àq ëllëg fa mu nekk fa mu koy fekk fay ko te kenn ku nekk xam na ne moom tubaab atuwaab fi mu nekk moom ëllëg yàlla ñu ci yàlla musal kon na wattandiku àq yi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di yàlla ñu suñu borom defal ak dégg ak topp sama defal ñu jàmm àdduna ak jàmm àlaxira te nangu ñu suñu jàmm yàlla sama defal ñu sami'na wa ata'na te wasu ci sami'na wa asayna asalaamaaleykum wa rahmatullah